waaw kon waaw kon comme ni ngeen ko gisee xëy na xëy na euh, defuñu de defuñu la grande pompe wante daal au moins feete nañ ko feete nañ ko aussi ni ñu ko bëggee woon te itam li nga xam ni euh, euh, moom nañ ko gisee nii dafa ñu jox mbegte bu bu bees ndax. tey yi dañ fi gis ay xaar kanam yu bees sañu postulat bi ñu déparé woon mooy aajawul ñuy woo àddina bi yëpp aajawul ñuy woo waa Sakal aajawul ñuy waa waa Louga nañu woo ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jege Kër Madaaro ak si ñi nga xam ne ñoo bokk ci bureau politique bi ak li mun la ñàkk loolu kenn ratewul donc ñu ngi sant yàlla bu baax parce que loolu bu amee mooy parti am na parce que un an boo ci mënee organiser. dem ba nga mën a def say manifestation boo koy def Kër Madaro bu la neex nga def ko Kër Madaro bu la neex nga def ko Thiès bu la neex nga def ko Louga bu la neex nga def ko Sakal bu la neex nga def ko Sénégal yëpp mooy wane ni parti bi am nay tànk bi ngi dox kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu mu ñu may. loolu lu koy expliqué ndax dafa am ñu nekk seen ginnaaw wala ñi leen di tuumaal ne da ngeen di liggéeyal Macky ñun en tout cas euh, sañu xel dal na ndax ñun en tout cas euh, fi ñu teg sañu tànk dafa leer Euh, bu ñu doon liggéeyal nit xam nga man ci jàpp naa fi ñu ma teg man wax nañoo foog ni man bu ma waxee li may wax moom lay def ndax dara euh, mënuma tax may wax loo xam ni neexuma ah kon nag jàpp naa ni ñun li nga xam ni moom lañu am mooy suñ capital expérience suñ capital sympathie ci Sénégalais yi ci par li ñu gis ñu liggéey ci lu loo xam ni yàlla dafa cee defal réussite fi ñu aw fépp yàlla defal ñu ci réussite looloo tax ñi nga xam ne mas naa liggéey ak ñoom fu ma toll ci Sénégal ba ma leen wooye ne au quart de tour ñu ñëw kon nag loolu ñu koy sant yàlla du ci ñun ci nit ñi la nit ñu baax la ñu yàlla may ñoo xam ni bu ma jógee ñu jóg bu ma taxawee ñu taxaw. convergence euh, d'initiative pour le Sénégal lan moo koy wutal ak yeneen parti et puis wax ngeen ne dangeen ngeen di dem élection député yi ak nan ngeen ci fas Euh, lëngoo du ci mën a ñàkk moo tax ñi koy ñi koy xeeñtu di xool à gauche à droite kan la ñu mën a àndal ñi ngi waxtaan a ay nit amagul lu ñu arrêté ñu daal comme ni ñu ko waxee woon ci bis bu njëkk ba nga fekkee woon ko mooy tàllal nañu sañu loxo ñëpp ah loolu nag euh, dialogue nag buy am ñaar koy séq ah mais élection législative moom bu dee ñun ñoo cay dem ñun kenn itam daañu ca dem incha allah loolu nag moom. yàlla moo ñu ciy dimbali ñu ngi koy ñaan mu jox ñu kàttanu ñu mën a dem ci élection législative parce que parti bu ñu ko créé mooy pour def li parti yi def mooy bu élection hmm? incha allah pour Louga am nañu candidat daañ ko appuyer moom itam pour fexe ba euh, ci élection euh, au conseil des collectivités territoriales ñu am fa en tout cas ay candidat ci conseil yi nga xam ne dañoo am nga xam ne dañu ko judduwaale am nañu droit ci ñooñu nag ñu wax ñu eh, ñu seet kan moo ci bëgg ñu jàppale ko la ñu am rek nu mu toll dana danañu doy. ndax jumtukaay yi eh, yemb na côté ministère bi war toppatoo élection yi tàmbale woon ngeen ay liggéey liggéey bi daa taxawoon. waaw liggéey boobu dama ne xam nga dañu dañu da nga xam ne dafa dañu commencé woon bi président woote jaloo ba pare le 9 juin eh, le ministre de l'intérieur woote hôtel Ngor Diarama ñu waxtaan mu fixé ni. ka trente partis ñoo war a saytu euh, code électoral bi trente yooyu bi ñu demee amoon na ay xiiroo yu am ci benn pole finalement ministre de l'intérieur yokkaatoon cinq par pôle mu nekk quarante cinq partis ñun ñu bokk ci pôle des non alignés ñuy saytu mbir mi actuellement euh, ñu ngi arrêté euh, mercredi passé la ñu arrêté xaa xalaat nañu sax ni daañu reprendre mais commission boobu li mu saytu mooy douze points yi nga xam ne moom la ministre intérieur joxe woon am na yeneen point yoo xam ni bokkul woon ci eh, li ministère intérieur ki woon mais pôle opposition dafa joxe woon eh, ay point pôle eh, des non non alignés joxe woon ay point pôle majorité ni moom po point yi Sénat bi proposer la yem mais nag am na sax yeneen yu mu génneewaat ci gannaaw bi yoo xaw ne xam xaw na bertaate wante nag li nga xam ni moo am dëgg-dëgg mooy ci li ñu discuter bi ci ëppoon import bi ci gënoon a yàkkamti mooy refonte du fichier électoral parce que électeurs yi dañoo war a euh, taxawaat ci commission yi euh, def defaat carte d'identité nationale bu CEDEAO bi mu amoon benn loi bu nga xam ne bu doon euh, carte d'identité rek la sax day am loi loi boobu dañ cee yokkoon nag nii ci gannaaw carte d'identité boobu dañ ciy def carte électeur bi mais ci loolu day am na ci ay ay divergence parce que ci opposition bi dañu considérer ni boo ñëwee taxaw ci commission bi danga nga war a confirmer da war a wax ni yow bu ngaa nekkaat électeur parce que sénégalais yëpp ñoo dem ci commission yooyu donc ci ay euh, disons ay réserve moo ci am mais ay la woon refonte bi loi boobu dafa war a dem euh, assemblée saytu ko rapidement parce que élection yi c'est dans neuf mois donc kooku rapidement war nañu génn ba ñu mën a commencer travail euh, euh, de comment dirais-je de confection des nouvelles cartes en direction des prochaines élections bu bu nga xamee ni nag dem nañu ba nga xam ne mënuñu ay la yowoon mënuñu nee nañu dañuy delluwaat ci fichier bu njëkk bi ndax loolu mën na nekk looy def booy def ci xamoo ba xam dana mën a àggaleem déet donc dana am mesure de sauvegarde mesure de sauvegarde boobu dañu ni bu ñu ko mënul a def nañu jël fichier bi nga xam ne moom la ñu génn ñu jëlaat ko mais ci loolu ñun des non alignés dañoo wax ni euh, refonte euh, kii comment mise à jour doy na euh, pour pôle de la majorité dañoo non pôle de l'opposition dañoo jàpp ni audit audit total moom moom moom la ñu war a def ah léegi nag am na yeneen problème yoo xam ni am na cautionnement ci élection yi ah double nationalité yooyu yëpp jot nañ cee wax mais en tout cas am na ci point yu sur les ci fukki point ak ñaar yi euh, Sénat mi nga xam ne moo amee woon supervision euh, commission bi dafa ni huit lañ ci d'accord ñun sañu pôle bi ñu kii dañoo relativiser ni huit pôle des non alignés dañoo jàpp ni huit yooyu du huit quatre yi lañ ci d'accord dëgg-dëgg yi ci des yi ci des am na ay réserve voilà. mais gëm ngeen amul gàllankoor yu majeur pour ñu mën a dem élection quand non mais Sénégal kenn mënatul la nax nit ñi kooku moom weesu nañ ko jàpp naa ni en tout cas li bon daal mooy report élection man ci man ci ni ma ko jàppee man man ci sama partie li ñu jàpp mooy lépp lu ñu mën a def ba report du am daal nañ ko def mais report rek mooy li nga xam ni mais Sénégal yi moom jàpp naa ni am na ñu maturité boo xam ni bu jotee daa daañu wote ci kenn du sàcc seen woon ku ko bëgg a jiite wala ku bëgg sa mbokk ak sa xeet parce que ñun ñëpp ay mbokk lañu Sénégal dañ cee war a sa loxo waaye nag bala ngay woote ñu wuyu la dafay neex nga am ñett yi ñu koy wax savoir avoir ak pouvoir macha allah yàlla boole na yëpp ci sama waaj yàlla yàlla xeet ndax professeur la jàng na jàngale na généreux na avoir bi mooy lan lu am amul xaalis ndax alalu àdduna du dara wante dafa am ay vertu lu nga xamante ni tey jii mu nekk jàngalekat nag war a nekk modèle suñu borom def mu am ko parce que tey jii ku ci nekk war nga boo doxee ñu respecté la ndax lan li ngay incarné loolu mooy dalal suñu xel te suñu njaboot ëllëg ñooy ñëw te ñu mel nii ñu bëgg a dégg suñu réew ñetteel bi mooy pouvoir am pouvoir mooy dama ko daan fental benn woy ma ni ko ci dëkk Louga ñëw defar Thiès dañoo nekk ci université bi autorité yëpp recteur de formation professionnelle baa ngi wax communication la dafay bari wax ñu ubbi université de Thiès amul brique maanaam source mel nii la jot koy étudiant mu wuti personnel fas yéenee ànd ak ñoom ni ñu nañ ba ba muy jeex seen dëkk ngeen di liggéeyal bu leen ci seentu xaalis bu leen ci seentu ndam ndam li mooy ngeen di xàllale am yeneen ñu ñëw jëfandikoo ku wax loolu ci liggéeyam bu ñu lay fay salaire waaw soo wootee parti mais damaa bëgg a xàlle loon bu yeer bu Sénégal jëm kanam ñëpp mun see jariñoo suñu directeur du ma guddal wante sama kàddu université Thiès yëpp wax nañu muy góor muy jigéen su ma tegee fii nag waxu politique yi nga xam ne soog moo ma ci dañoo nekk ñuy liggéey ak yow nga téye ñu comme sa njaboot wan ñu yoon bi jàngal ñu liggéey jàngal ñu ñeme coono jàngal ñu nangoo sacrifié teg ñu comme doom yooyu tey jii moo waral suñu yendu bi te buñ aaji woon fanaan ñu fanaan ndax ba nga jógee université de Thiès yàgg na yàggul wante ba tey yaa ngi si xol yàlla suñu borom tàbb na ci xolu sénégalais yëpp ba lu ñu sàkku am ko anniversaire bii yàlla nekk suñu njëkkeelu anniversaire wante yàlla ci ndam yu bari bari topp lu ñu defal nag sàmm yaa ko moom waa Louga jàppale ni recteur waa Madaaw moom ni ko wante waa Thiès ko moom eh. danaa di xajalee si rek xam ne tey jàppale ci université ñuy ay mère de famille di ay père de famille tey damay wax ne jabaram ji bu doon politique politicienne rek la ñuy def fii dina fees dell ndax ña mu mën a dimbali ci université Thiès di leen jël comme contractuel ñuy liggéey di yóbbu ci seeni njaboot bu doon daf koy def par politique wala chantage defe naa fii dina fees mais liy wane ne naturellement am la ko defee xam naa ne du ma ne indiwu fi nit waaye indiwu fi ñooñu ñun ñi nga xam ne dañoo nekkoon ak part de chambre depuis université Thiès di door nga xam ne booba terrain nu la ñuy wax Pape Ibra samp fa loo xam ne dañ naan wax waxaat du bari wax bëgg nit ñi mën a comprendre rek ndax la répétition et pédagogie Pape Ibra Samb mën nañuy wax booy waxee qualité am danga naan sax euh, xëy na sëriñ boobu bu bu bu taalube di tarbiru waaye déedéet ngëm-ngëm la ñuy waxee ndax man yàgg naa wax ne. ku ma ëppul xam-xam du ma jiite loolu defe naa Babacar Ndaw journaliste Babacar fekke ma yàgg nga ma sama biir salon ma wax la ba tàyyi ne ku ma ëppul xam-xam du ma jiite loolu maa ngi koy ferndelaat loolu depuis 2012 la ca Macky Sall ak Ablaye Wade ma koy waxaat fii tey ci kër ma daaru mënoon nañoo dem APR amoon nañ fa place wér sax loolu ci seen kanam lañ koy waxee te du ngeen ñu démentir mais on a préféré être derrière quelqu'un boo xam ne par qualité qualités morales par ses compétences ndax li may wax ne Baye Oudé boo duggoon université Dakar faculté de sciences boo seet boo génnee ña fa formé comme cadre boo fa génnee ña mu fa formé comme étudiant mën naa wax ne dara du fa des réew mi soxla ñu mel ni moom ci xam-xam réew mi soxla ñu mel ni moom ci vertu ak qualité. ah man de loolu personnellement moom laa gis ci moom moo tax ma topp ko du xaalis kon nag dama leen di ñaan parti bu am un an effectivement tey la ñuy fête suñu un an 9 août ba muy taw ñu nag ñoom màgget ñoom tuuti ñoom madame ñëpp nga fa woon sàkkal Louga Paal ñëpp xawteeku la muy taw taw taw kër euh, stade dafa fees dell ndax la ndax jikkoom ndax nag fa mu cosaanoo tey ku fa demoon. ñun personnellement jàng ya ñuy organiser at mu nekk moom mii la mu fay def bu ci dindi woon loxoom mën naa wax ni dëkk ba fay kon bàyyi du dañ koy ñaanal ndax ñaanal ko ñaanal suñu bopp la koo xam ne tey mënoon na li mu xam ci xam-xamam mu yemale ko ci njabootam waroon na mën a toog nag ndax ku liggéey tam ba am benn âge bi am benn stabilité bi waroon na mën a la nga am nga yemale ko ci sa njaboot mais pa day wax ne su mën a réussir du yéen bàyyi leen ginnaaw je préfère démissionner bàyyi loola kon la muy def pour ñëpp la du pour moom kese. yooyu jikko nag ku ko yàlla may war ngaa mën a ànd ak moom war ngaa mën a gëm bu la mayee ku lay ndékk ndékki reer bu la mayee ndékki ak añ nga war a gëm ne dina la jox reer waaye di nit ku yaatu di nit ku sociable di nit ku. ay qualité comme ni ma ko waxee rek buñ ko bëggee wax fii dinañ fi fanaan donc li ñu boole mooy réew mi dafa xam ne daf cee am pàcc chaque doit y mettre moom dafa xam loolu ndax du lu ñuy bàyyi kenn rek di ko xëccoo ñépp ci war a bokk tout le monde est impliqué mu xam ne moom it am na ci dafa ay xam-xam xam-xamam war na ci mën a dox loxoom mu di ko def looloo ko ci dugal looloo ko ci dugal donc ñu ñun itam bu ñu amee boobu gëm-gëm xam ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk kenn rek moomu ko ñu war a mën a ànd ak moom xeex xam ne fi mu teg tànkam man li may wax wayu Fatou Gueye boobu demal ca kanam fi nga teg sa tànk foofu la ñun ñoo ngi ci sa ginnaaw nangoo ànd ak yow foo loo ñu wax loolu la ñu gëm loo ñu waxul ndax xam nañ ne sa ma sa sa maturité intellectuelle mat na ko moom la ñu gëm donc ñoo ngi sa ginnaaw te ku bëgg avancement ca kanam bañ a yàkkamti xam ne fi ñu teg suñu tànk yoon lu mu jaar yoon la ñu ànd ceeg moom par dans le grand plus respect la la koy doxee Pape Ibra Samb du saaga du wax lu ñaaw du tonte lu moo a tontu am nay qualité morale daal yoo xam ne munul moom la ñu gis ci moom di ko ko toppee boole xam-xamam nag li nga xam ne mooy base u lépp macha allah tabarkàlla donc loolu la ñu ko toppee ba tax ñu ci ànd ñu leen di ñaan yéen itam ngeen gëm-gëm googu ñu àndee kook moom bu gaja yàkkamti xam ne la ca kanam rawale bët yàlla nañu si yàlla yóbbu wasalaam